بسم الله الرحمن الرحيم حكمة طيبة موي لو تول تي فوك يف يو خامني بولاكو يالا خيوالي بوكو مانيفيستي و موك كيب كو خامني يالا داف كو خاج لولي يالا يو بيسي نيك موي سو يالا أم nga am alal sa bul fekk mukk koo xam ne amu ko dafa ñàkk ngay wanewu ci kanamam di manifesté wu ci kanamam di wane ne yàlla jox na la alal ndax loolu dana waral nga tàbbal ci ab xolam tiis wu rëy rëy bu la yàlla xéewalee amug wér bul fekk mukk koo xam ne dafa tawat sonn lool ngay wanewu ci kawam lu mel ne di yëngal say cër wala ngay sport wala ngay def benn bruit boo xam ne day tax nga tàbbal ci xolam autis bu la yàlla mayee kàttan gu bari bul fekk mukk koo xam ne dafa lot lompoñ ngay wanewu ci kanamam bu la yàlla mayee teraanga may la tedd nga sa daraja yëkkatiku ba foo dem ñu xam ne diw na di ko bul fekk mukk ko xam ne yàlla daf ko toroxal kenn xamuko ngay wanewu ak ko ci kanamam ndax loolu dana tax nga tabal ci xolam aw tiis bu reere ak metti bu fekkee ne nag yàlla daf laa may liberté foo bëgg dem nga dem fa moom sa bopp lool bul fekk mukk koo xam ne dañ koo xañ ak génn lu mel na ñu tëj ko kaso ngay wanewu ci kanamam wala bu la yàlla mayee kon xéewaluk nga am jàppandaluk foo bëgg tukki ci àdduna bi nga dem fa bul fekk foo xam ne mënta génn dëkk ba mu nekk ngay wanewu ci kanamam su la yàlla xéewalee ay doom nga am doom yu baree baree bari amuy góor amuy jigéen bul fekk mukk koo xam ne yàlla daf koo def muy ku ñu taxawal ak njur nga xam ne mënta jur ngay waxtaane say doom yu bari nañu mel nañu yëngoo ak seeni mbir ak yu ni mel ndax loolu dana tax nga tàbbal tiis wu rëy rëy ci xolam bu la yàlla mayee ngay ndaw dese woy bul fekk mukk koo xam ne ab jirim la wala muy ab baayo boo xam ne amul yaay wala jirim bu amul baay nga taxaw ci kanamam di waxtaane tedd ngay sa woy jur ndax loolu dana tax nga génne ay ronq ñam bi ci topp nag mooy lépp loo xam ne moom ngay wax ci àdduna bii dem ba koy génne saw làmmiñ ci say mbiri àdduna say activité na ngay fexe ba na ngay sàmm wanteeg yëg-yëgi ñeneen ña ngay xam ne ña nga xam ne ñoom ñoo lay déglu ca la ngay wax ndax léegi léeg ngay waxtaane mbir fekk mbir moomee ma ngay gaañ keneen koo xam ne ma lay déglu loolu it dana tax doo gaañ kenn doo blessé kenn bu la yàlla mayee nga nekk koo xam ne dangaa wér dara jotu la nga mën a yëngal say cër bul dem mukk ci kanamu koo xam ne amutuy tànk wala dafa laago wala mënta yëngal ay cëram wala mu amee ay gaañu gaañu ngay tëb di dal ci kanamam ndax loolu soo ko defee moo ko reetaane ñoo yem jërëjëf ba beneen yoon